إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين mbokk jullit yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom jalla waala seede ne moom dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu jullit du ragal ku dul yàlla du yaakaar ku dul yàlla du sant ay xéewalam lu dul ci yàlla ñi ngi koy ñaan mu julli ca yeneen tam ba sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamee ne jullit dafa war a góorgóorlu ba mboolem ne muy jaamoo yàlla moo am ca lay ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale woon gannaaw loolu mbokk jullit tey jii ñi ngi dund ci àdduna bi la nga xam ne mooy xew-xew bi ci gën a rëy xew-xew boobi ñu tuddee ko coupe du monde coupe du monde boobu nga xam ni yéeféer yi ñoo ko sos ñoo ko organisé nga xam ne daanaka buy xew xaw nga mën a wax ne lu jóge ñeenti milliards ci doomu aadama yi ñu ngi koy topp suñum réew demoon na fa lam fa jële yéen ñëpp xam ngeen ko loolu moo taxoon tey jii ñu bëggoon a delloo wat ndawal jullit ñi ana ban équipe lañu war a bàyyi xel ana ban mooy équipe gagnante bi nga xam ne seen gañaay la kenn mësu koo gañe ca seen gañaay loolu mi ngi continuer di jur ay gañaay ba ila yumi diin seen gañaay loolu moo tax tey ñu daje fii ci jumaa ji di julli ñooñu mbokk mooy ñan mooy sahabatul kiram sahabatul kiram ñooñee nga xamee ne nii suñu borom jalla wa ala daf ñoo sant ñu jaamoo ko ci ñu bëgg leen bëgg saxaaba yi diine la bañ saxaaba yi ak kéeféer la ñooñu la yàlla subhanahu wa taala defoon ñu nekk suñuy royukaay ñan ñooy jàmbaar ya ñooñu ñooy jàmbaar yi jàmbaar ya ñooñu ñooy ña nga xam ne tey jii la nga xam ne mooy seen histoire seen jaar jaar seeni ngañaay la ëpp ci doomu jullit yi xamatuñ ko ana doomu jullit yi lañ xam mooy la nga xamee ne mooy sportif yi nekk de par le monde mooy diw ma nga bokk équipe tel champion d'Europe champion d'Amérique kii mi ngi gagné treize milliards par par par an kii ma ngay gagné nangami million ñeneen ñaa nga jëm ci yeneen artistes ya ñeneen ñaa nga jëm ci politiciens ya amma la nga xam ni moom mooy jàmbaaru diine ya ña joxe woon seen bakkan joxe seen deret ña gàddaay yoon seeni njaboot gàddaay seen alal ngir diine lislaam taxaw tey dii li ëpp ci doomu aadama yi xamatuñu leen waxumaa nag di leen di roy e yow ndawal julit xamal ne ki nga xam ne moom nga war a topp gëm ko fonk ko muy sa istaar bi gën a kawe mu nekk sa royukaay boo xam ne lan la lay jural question bi ngay posé sa bopp yow ndawal Sénégal bu doon tey dañoo indi woon fii coupe du monde ndax dana la teqaleeg sa ceebu keccax bi ak sa sumbi bi ndax dana la teqaleeg jafe-jafe yi ngay dund gu dégg ba ceeb laa wallah kaay ma wax la nag équipe boo xam ne boo ko supporté na nga ko war a supporté mu jural la nga ñaay loo xam ne amul fu mu yem ba faw ca mooy aljanna suñu borom yàlla jalla wa ala mu ni wasaabiquuna al awwaluun min almuhajirin wal ansar walazina tabauhum bi ihsan nee na ña nga xam ne ñoo jiitu woon gàddaay seen kër ya gàddaay seen alal ya gàddaay seen njaboot ya muy muhaajiruun ak waa ansaar ya leen teeru woon sédd ak ñoom seen alal seeni kër sédd ak ñoom seen lépp dalal leen suñu borom nee na ak ña leen topp ci rafetaay yi ña leen roy ci rafetaay yi duñ jaamoo yàlla lu dul na saxaaba yi demee woon ana lan mooy seen gañaay yi ndax mooy coupe du monde ndax mooy coupe d'Afrique ndax moo ñu indil ne benn bagatelle de un mille milliard la wallahi mbokk jullit loolu lépp poussière la boo xam ne même bu amoon day jeex amma lal moo dul jeex suñu borom nee na ñooñu topp sahabatul kiram yooyu roy leen jéem a jaar fan jaaroon borom bi subhanahu wa taala mu ne radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada zalika al-fawz al-azim suñu borom nee na ñooñu day yàlla dana leen gërëm ca muñ demee àllaaxira daañ fa fekk lu ñu gërëm la leen fay xaar muy àjjana yoo xam ne dex yaa ngay daw ca suuf borom bi nee na zalika al-fawz al-azim loolu mooy texe bi gën a rëy ci texe yi ey yow ndawal jurit yow douzième gaynde du supporter ab équipe bi indi woon fi coupe d'Afrique wala coupe du monde loolooy tax nga texe waaye lay tax nga texe dëgg-dëgg xaaral ma wax la ñii nga xam ne ñii day boo leen supporter topp leen gëm leen jéem a jaar fan jaaroon da nga am ganaay loo xam ne amul fu mu yem ca àddina amul fu mu yem xaalidina fiha ey waaye yéen ndawal julit xam leen ne sahaaba yooyu suñu borom teg seen kanam ñooy génération bi nga xam ne ñooy ñi gën gannaaw yeneen ci yàlla yi ñoo daje woon ci benn siècle boo xam ne ñu mel na ñoom dootuñu amate ba ilaa yawmi diin amul kenn koo xam ne dana ñëw gannaaw sahaaba defal yàlla jalla wa ala jaamu yàlla gu tax yàlla yëkkati ko ba mu toll nii sahaaba ngal la waay loolu mun ta am ah sa sëriñ de mën naa baax lool sa sëriñ mën naa bokk ci ñiy giddee sa sëriñ mën naa dem aljanna waaye ngal la waaye xamal ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne xam leen ne kenn ci yéen bu amoon montagne bu tal na Uhud ci or mu sarxe lépp ci yoonu yàlla du mën a dab benn kilo boo xam ne ah sahabatul kiram dañ koo sarxe loolu it la ajoo ci mboole mi jaami yàlla yi sahaaba yi mbokk ñu ngi noonu mboolem xéewal gu nekk ci jurit ñi yàlla ci ñoom la ko jaarale mboolem un milliard et quelques de musulmans yi wax laa ilaha illa allah ci kaw suuf tey liggéeyu sahaaba ya la keroog xare badr baleen yonent bi alayhi salaam tiimi ñu war a dajeeg yéeféer yi ñuy ñetti téeméer yéeféer yi di junni ay nit ca la yëkkati woon ay loxoom ne ko ay yàlla bu la neexee day kenn dootu la jaamu ci kaw suuf ay yàlla ñii boo leen dimbiliwul ba yéeféer yi faagaagal leen kenn dootu la jaamu ci kaw suuf ca loolu yàqulul yàlla dara waaye teewul yàlla dimbali leen kon képp kuy jaamu ci kaw suuf mi ngi jóge ci barka sahaaba yooyee heure booy jàng alquran heure booy jaamu yàlla looy def ci lu baax heure boo muccee ci sawara heure boo tabbee aljanna mi ngi jóge ci barka saha barka sahaaba yooyu nga xam ne ñoo ñëw gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotti li ñu alquranam ja jotti li ñu sunnaam ja jotti li ñu doxalinam ba mbokk ñooñu ñooy sahaaba ya waaye ngir ndaw ñi mën a dégg tey jii équipe yi nekk dans le monde tey jii da ngay gis ne fukki ah nit la ñuy jàpp ci ñi jàpp ne ñoom ñooy ay jàmbaar ñu représenté leen dugg ca terrain ba ñu ànd ak seen góol muy fukk ak benn loolu moo tax tey ñu leen tànnaloon fukk ak benn fukk ak benn ñooñu mooy ñan mbokk mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa toog ak sahaaba yi ci mbooloo mu mag mu ne ay yéen sahaaba yi xam leen ne day yonent bi àjjana la jëm loolu kenn sikk sàkk wuti waaye aboubacar àjjana la jëm omar àjjana la jëm ousmane àjjana la jëm ali àjjana la jëm abu obayda àjjana la jëm sad ibn abu waqas àjjana la jëm talhata ibn obaydallah àjjana la jëm abdourahman ibn awf àjjana la jëm sayid ibn zayd àjjana la jëm ñii mooy équipe bi yonent bi alayhi salaam tànnoon ci biir sahaaba yi naam yow mi nga xam ne yaay ndawal julit xam nga sa équipe moom lan la yóbboon fële ca Qatar amma dii si yonent bi alayhi salatu wasalaam tàmmo tànn woon mbokk mooy ñii nga xam ne ci mbooloom sahaaba yi la leen wax ne ñii kat àddina leen jëm kan mooy aboubacarin sadiq mooy ki gë jëkk a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yonent bi àndaloon ca gàddaayam nga moom la yonent bi doon diisool mu nuroog moom jukkalool ca dalam nga ca teeyam nga bi yonent bi di woote mu amoon alal lool alal doo jépp mu dépense ko ci yoonu yàlla mboolem jaam yi ñu doon bundu xataal mooy ka nga xamee ne ni moo leen doon goreel moo jëndoon bilaal ak keneen ku dul bilaal moom la yonent bi alayhi salaam daan woote ci jamonoy guerre mu daal di dem indi alal joo xam ne ba ko yonent bi laajee Aboubacar loo bàyyeeg sa njaboot mun a bàyyee naa leen yàlla ak yonent yàlla lépp mu indi ko radiyallahu anhu musul denc alal gannaaw yonent bi sal gannaaw bi islam commencé woote lépp lu masan am da daan jël le strict minimum minimum la daan jël moom njabootam lu masan ñëw ci loxoom mu daal di koy séddale fuqaraaw yi ba fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee moom mooy ki nga xam ne moo taxaw yëkkati drapeau l'islam delloo si sahaaba yi ca caalit gën caalitoon xeex ak ñi doon sikki sàkka ci waa ridda mooy ki jëkk a dajale téere bi yàlla bi dajale waat islam teg ko ci yoon mbokk koy moo kooku mooy abubakarin sadiq laajal ndaw ñi nga xam ne xam nañ suñu jour yi xam seen i lépp seen i dugg seen i génn laaj leen lu ñu xam ci abubakarin sadiq gannaaw loolu omar ibnul xataab omar al faruq omar bi nga xam ne ci jeunesse am même pas 30 ans la dugg ci biir l'islam fekk yonent bi alayhi salatu wasalaam nekk ca daari arqam ibn al ibn abil arqam di laqatu ak sahabaam ba mu ñëwee dugg ci lislaam mu ne yow mi yàlla yónni ñun ñoo nekk ci dëgg ñooy nekk ci ak neen suñu dëgg gi duñ ko nëbbu fokk dañ koy génne tey Omar na ko wax nga dëgg ci noonu la yonent bi génne mook sahaaba ya ñu def ñaari rang Omar jiite benn Hamza jiite benn ñu ñëw ci Kaaba gi keroog waa Makka yépp am tiis am naqara ñu manifester première manifestation bu jullit ñu def Omar moo ko jiite loolu tax yonent bi tudde ko Omar al Faruq ay yow ndawal julit mi nga xam ne da ngaa bëgg istaar da ngaa bëgg koo roy bàyyil kooku Omar boobu nga xam ne mooy ñaareelu xalifa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daw nañu ko tar lool nitu dëgg lool ba yonent bi alayhi salaam ne mbedd bu mu jaar seytaane du fa jaar ba yonent bi alayhi salaam doon wax ne bu doon yonent day am sama gannaaw Omar lay doon kii mbokk mooy Omar ibnul Xattaab radiyallahu anhu nga jóge ci moom ñëw ci Ousmane ibnul Affan Zunuurayni doy na ko aw tagg rek yonent bi may ko ñaari doomam may na ko ruqiya mu faatu mu may ko umu kalsum mu faatu mu ne wallahi su ma dese woon beneen doom bu jigéen dinaa ko ko may Ousmane ak alalam jëbëri ja Ousmane biñ ñu jënd na àddina ñetti yoon ci alalam keroog xaswatu Tabuk jullit ñu jaaxe lool Ousmane yonent bi alayhi salaam xutba na ana kuy indi effort de guerre keroog mu indi ñetti téeméeri giléem ak mboolem arme yi ñuy àndal ak mboolem yóbbal yi ñuy àndal keroog la yonent bi alayhi salaam waxoon ne ibnu affan lu mu mën a defee ci kaw suuf du ko tee mu dugg aljanna borom kersa gu màgg gaa ngi noonu téere yi ngeen di gis lu ci bëri ñu bind ci musaf Ousmane keroog ba nga xamee ne nii Aboubacar dajale dajale na alxuraan ñu denc ko d' accord waaye alxuraan mi ngi doon continué wër waa Saalum ña ngay jàngi nii waa Bawol ne waa Kajoor ne langue arab yi wuute ñoo deme deme dem ba Ousmane daal di mujj gis mook sahaaba yi ne lii bu continuer mën nañoo li dal chrétien yi dal ñu kon nañ dajalewaat alquran ci lammiñu yonent bi Quraysh bi mu doon wax ca la ko Ousmane dajale daa dine nañ lakk mboolem yeneen alquran moo daal ci def ay exemplaire ci jamono bu këyit jafe lool yónni ko ci région islam yi ba tax alquran di ñu tuddee ko tey la nga xam ne mooy musaf Ousmane mbokk mi ngi noonu gannaaw loolu ali ibn abi talib mbokk jàmbaar yi jàmbaar yaa ngi noonu ay yéen mbokk julit ay yéen jeunesse bi kee nga xam ne moo jël ballon d'or kee nga xam ne moo jël nangam nangam mbokk loolu wallahi ana lan la jeexitalew sëg dund xamal ne jàmbaar dëgg dëgg dëgg kan mooy jàmbaar mbokk ali ibn abi talib kooku nga xam ne ci déggu jeunesse am ay vingt et quelque ans la yonent bi alayhi salaam di gàddaay bàyyi ko ci lalam bàyyi kook ndinkaane yi mu risque dundam nangu nangu loolu gannaaw loolu mbokk julit taxawaay yi nga xam ne taxaw na ko ci lislaam keroog ali ca badr ba ñuy jëkk def koor a koor moog ñoom hamza bañ rey sahaaba yu bañ rey yéefar yu bon yooyee keroog keroog ci xasatu ahzab moom dong moo fa xeex xeex bu mag ba ak Omar ibn Waddi di jàmbaar joo xam ne nii jàmbaar yéeféer boo xam ne na mu toloon jiggi na dayoo histoire am dayoon na xutba keroog ci xaybar bañ jógee jëkk a def benn attaque sottiwul te suba ga ñu attaqué war sahaaba yi sottiwul te guddi ga yonent bi alei salaam ne xaaral bu subaa danaa jox drapeau bi ah jàmbaari l'islam boo xam ne ku bëgg yàlla la bëgg yonent yàlla yàlla ak yonent yàlla bëgg ko sahaaba yépp ku ne bëggoon yonent bi jox ko drapeau bi bañ xëyee yonent bi julli fajar ba pare ne ana ali ñu ne ko ali day dafa wànneen ba munta gis mën a wóol leen ma ko ñu ñëw mu daal di ñaan ci bët yi ëf allun daal di wér ci wànnente bi keroog la gëj a wànneen ba baa muy faatu keroog la dem ca la nga xam ne ni mooy xaybar daja faak ponkal moo xam ne dañ ko doon tënna mër hëpp lan doon wax ci moom ci rëyaay jéggi na dayo ali moo xeex ak moom rey ko mbokk ñii ñooy jàmbaar ya nga xam ne nii ñoom la ñu war a fàttaliku but ya nga xam ne moom lañ dugalal lislaam grâce à but yooyu ñu dugoon ñu dugaloon rey yéeféer yi gannaaw loolu dajeek ak yéeféer yu bon ya ko mel ne musalimatul kazab rey ko mook ñoom àndaloon looloo tax mbokk tey islam boobee di wéy ba ba suñ demonee tey gannaaw loolee jàpp naa julit moyen yi xam na ñeenti sahaaba yooyu abubakar omar usman ali ndax ñii ñoo wuutu yonent bi salallahu alayhi wa sallam mu des nag juróom benn yoo xam ne mën naa laa waatal ne demal ci terrain basket bi wala terrain boo mën a dem ngay indaale cent mille francs nga ne ay yéen ndawul julit ñi kaay leen di xam ngeen équipe nationale la naam équipe de france naam espagne naam allemagne naam d' accord mais fukk yi yonent bi waxoon ne àjjana lañ jëm ñu bokkoon ci ñi ko gën a jege ñan lañu dañuy sajj seeni loos lii ngeen bàyyi ci xel bu baax su ko defee gannaaw ñeenti ñooñu ka ca yonent bi tegoon mooy ki nga xam ne mooy abu obayda amir ibnul jarra ka nga xam ne moom lañ duppee jàkka jee suñu doomu ndey ja usman gallaaju di jiite abu obayda amir ibnul jarra gëm yonent bi alayhi salaam bàyyi diine maamam ànd ak yonent bi gàddaay ñu jóge foofu waa yéefar takk xare dajeeg julit ñu ca badr kii di baayam bi gis njàmbaarte gi abu obeyda nekk mu daal di ñëw taxaw ci kanamam ak gileemam pour bëgg koo baare ba mu ko éviter benn ñaareel ñetteel ba mu corloos bi waxuma yéefir yi dañoo yéemu waaye jullit yi sax dañoo yéemu abu obeyda nan lay reye baayam ca la yàlla wàcce ab aaya bu ñuy jàng ba ilaa yawmi diin ne abu obeyda lim def mooy dëgg jullit bu gëm yàlla gëm yeneen ci yàlla gëm àllaaxira du mën a sopp mukk yéefir buy xeex lislaam mbokk kii lislaam moo ko jaral mu gàddaayi màkka gëm juddoo yaroo ko bàyyi fa alalam islaam moo ko jaral mu dagg bopp baayam ay yow ndawal julit lan la la islaam jaral abu obayda boobee moom moo dem ubbi la nga xam ne mooy Shaam sidigi ak li ko wër yépp ba gannaaw yàlla ci pest la fa deeyee ci jamono ah Omar ibnul Xataab gannaaw loolu ki nga xam ne mooy Saad ibn Abi Waqaas bi nga xam ne moom la ñu dëppee sunu jàkka ji moom la ñu dëppee sunu jàkka ji muy Saad ibn Abi Waqaas kookee nga xam ne moo jëkk a sànni la nga xam ne mooy fétti ci yoonu yàlla keroog xare uhud moo taxaw ci wetu yonente bi alayhi salaam junniy fett du sànni na ko junniy fett saad ibnu abu waqas sànni na ko ba yonente bi alayhi salaam naan ko irmi ya saad fidaaka abi wa ummi ay saad sànnil jote naa la sama ndey ak sama bàyyi ay yéen ñi nga xam ne yéenay topp ñi may bañ a tudd seen tur ñaata bit lañ dugal na am am na ci kenn koo xam ne ni ku siiwoon la ci àdduna ñu tëdd ko pëlee moom deman am na ay temps ñu ne dugal ni mille bit na am dans sa carrière waaye mbokk ci benn bëccëg saad ibn abi waqas radiallahu anhu ci diggante mag yéeféer yi junni fekk saad sànni na ko kii mbokk mooy ka nga xam ne moo gannaaw loolu taxawu diin lislaam mboolem la nga xamee ne nii yonente bi alei salaam taxaw na fa ci xeex taxaw na fa ci wetam histoire am rek doy na ab xutba nga jóge ci saad ibn abi waqas nga dal si ci ki nga xamee ne nii moom mooy talhata ibn ubaydallah talhata moom la yonent bi doon wax talhatal xayr mooy talhata yiw bi nañ dellu keroog gazwatu uhud mooy ki taxawoon moom it ci kanamu yonent bi alayhi salaam di capter fett yi ñëw ci yonent bi ba baa muy dee loxo bi dafa paralysé yàqu complètement ndax fett yi ci doon dal ngir mu sauver yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba ñuy repli wu sahaaba yu bëri daw yonent bi di dem moo ñëw ba ci benn xeer moo sukk yonent bi mënoo ko yéegal yonent bi yéeg ci ay mbaggam ngir mucc moom mu nekk fa kër kër yi xool nu muy sauver bakkanam mbokk kii mooy talha bi nga xamee ne nii moom dong la nga xam ne mooy ay mbiram doon na lislaam yow ndawal julit nga jóge ci talxata ñëw ci ka nga xam ne mooy zubayr ibnul awwaam zubayr ibnul awwaam moom la yonente bi alei salaam doon wax naan li kulli nabiyin xawaari wa xawaari zubayr ibnul awwaam bépp yonente am na aide de camp mooy koo xam ne ni mooy jàmbaar ji sës ci moom mu ne man sama jàmbaar dëgg mooy zubayru keroog ba ñuy dem xare badr moom dong moo yoroon fas mooy miqdaat zubayr boobee nga xam ne moo doon séeg asma bintu abu bakar di di magu aïcha radiallahu anha jàmbaar yi diina joo xam ne nii amul fenn foo xam ne ni yonente bi taxaw na fi di xeex lu dul moo taxaw ci kanamam ñii ñoo xeex ba lislaam yegg fi mu yegg tey gannaaw zubairu ibnu awaam nga ñëw ci abdourahman ibnu awf abdourahman ibnu awf mi nga xam ne yàlla da ko mayoon moom it mu yoroon alal gannaaw ba mu bokkee ci saxaaba yi gàddaay saxaaba yi jihaad mu amoon lu mu gënoon a feeñe alal ju bëri alal joojee moo nekkoon delluwaayu mboolem fuqaraawu madina yi delluwaayu mboolem ñu tumuranke amul kenn koo xam ne nii bëtam dana xonq lu dul mu xelam dem ci abdourahman ibn awf mu daal di koy fajal la nga xam ne nii moom mooy ahdom boobee gannaaw loolu mbokk dilit am na ci koo xam ne ni dañ koy tuddee saïd ibnu zayd saïd ibnu zayd boobee mooy ka nga xamee ne nii moo jëkk a nekk gouverneur ci fii nga xam ne mooy Damas ci ci Syrie ci jamono Abu Ubayda Amir ibnu Jarrah Saïd ibnu Zayd boobu moom moo doon sëy ak Fatima bintu Xattaab bi nga xam ne mooy sëru Omar ibnu Xattaab ca seen kër ca sababu sa Saïd boobu ak Fatima ca la Omar ibnu Xattaab dugg ci biir Islam mbokk lii da ngay gis ne jàmbaar yu mag yi nga xam ne ni dañ leen koo limal ñooy fukk ñooñee nga xam ne ñoo wóoroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e waay ndawal jullit jëm koo jàpp jëm koo jël onze nga bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu le premier gannaaw ba abu bakarin siddiq omar ibn al-khattab usman ibn al-affan ali ibn abi talib abu ubayda amir ibn jarra saad ibn abi waqas talhat ibn ubaydallah zubair ibn al-awwam abdurrahman ibn awf sayid ibn zayd mbokk onze ngi nii yow mi nga xam ne da ngaa bëgg onze ngal la waay ñii mbokk nañ leen def suñuy royukaay nañu leen topp doonte na sahabatul kiram buñ la laajee kan moo gën ci xeet bi ngal la waay xamal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci xeet bi julit bu ci jéem a sikk sàkk safara nga jëm waaye gannaaw loolu xamal ne ki gën ci xeet bi mooy abubakar gannaaw ba omar usman ali gannaaw ba fukk yooyu yonent bi ne woon àddina lañ jëm gannaaw ba mooy sahaaba yi fekke woon badr yonent bi alayhi salaam daanaka ci gàttal yow julit bokk nga li ngay wax mooy mboolem sahaaba yi waroon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam àddina lañ jëm waaye lu tax ñii ñu tudd leen ñii ñoom yonent bi daa toog ci mbooloo mbooloo mu bëri sahaaba yi nekk fa mu daa di lim seeni tur mu daa di lim seen tur moo tax ñu tudd leen al mubashir al asharatul mubashirina bil janna mbokk ñu ngi ñaan suñu borom jalla waala yal na yàlla delloo si suñu xelu ndaw ñi yal na yàlla delloo leen ci seen diine yal na yàlla bëggloo leen lislaam ñu bëgg yàlla bëgg yonent ci yàlla bëgg sahaaba yi nga xam ne tey jii yàlla ubbil nañu internet lépp loo bëgg a xam ci sahaaba yi xam ko ci siira yomb na lool loolu nga xam ko jéem a góorgóorlu mel ne moom wallahi la nga cey jëlee moo gënul nga nekk président de la république chef d'état-major général des armées la nga cey jëlee mooy gëm leen bëgg leen jéem leen a roy mooy bis boo dee yàlla subhanahu wa taala tabbal la aljanna aljanna mooy lan mooy xéewal goo xam ne bët mësu koo gis nopp mësu koo dégg kenn mënul imaginer bi imaginer la nga xam ne mooy aljanna yal na yàlla def ko mu nekk suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxasirin allahuma habib ilayna aliman wa zayyanhu fi qulubina wa karrih ilayna alkufra walfusuq waj'alna min arrashidin ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين